yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf ku dul jóg ci di wax lu nekk doo jóg ci di dégg lu nekk le quotidien nañu loolu moo dal Macky ubbil yéenekaay bi la mu waxoon keroog ca Paris la France moom Macky ne na gaañe xam ne xuux dàq ko ndekkam ba muy doon opposant la ko dara jaaxalul kon du léegi bi mu doonee président yore lépp yore yépp ci la ko kenn man di intimider yéenekaay bi nañu kàddoom yooyee moom Macky Sall dégg na ci lu nekk opposition bi ci réew mi yàq nañu ko mbusi baak mbelengaan bokk ci ñoom Ousmane Sonko mën a mën a moom segg soxlawul di wax wax waxtaanam Bougane Gueye Dany nañu li mu def moom Macky Sall lu dul woyof te jéem maase ak nit ñi rek yàq na ko waa këram moom Bougane Gueye di journal La Tribune bind ci seen xët njëkk ne opposition bi génne nañu ngànnaay lu diis li tetaar ngir dal ci kaw Macky kàddu Déthié Fall ci journal bi muy wax ne Macky Sall wàccati na aw yoonam suur soine ko moo taxi dégg na ci lu nekk gars ci opposition bi dañu koo dogot dogotee fejar ko wax nañu ko kay moo soxlawul di wax naan moo yore doole ji duudu wàdd nañu ci réew mi quotidien fitna gi ñu nemmee ci réew mi ci géopolitique bi lu jiin njaaga état bu Sénégal mooy njaag état bi mooy responsable duudu wàdd tegal ñu ci ne ñaar rekk mën a am soit Macky Sall jot ci ñetteelu mandat gi muy ruumandaat soit mu taal réew mi boroom réew mi di Macky Sall tribune nee nañu xamle na keroog ne liste parallèle yi ñu gis ci coalition Benno Bokk ko autorisé la Macky Sall def na wax waxeet boole ceeg wane na ne mënul lu bari ci gaayam yi gaay yi mu wékk yaakaar ngir ñu gañal ko maire bi Kaolack ci local déwén yi journal Les Échos nee nañu Mouhamed Ndiaye Rahmala Souleymane Ndéné Ndiaye maître Nafissatou Diop Cissé député Awa Gueye Adji Diarra Mergane Diène Farba Sarr ak rakki maître El Hadji di Moussa Sarr waayam ja ca Linguère moom Macky Sall di Aly Ngouille Ndiaye Vox Populi nee nañu farandoy Jibi Ndiaye mere nañ ko démb proposé woon ca liste ba ñëpp la Aly Ngouille Ndiaye dindi ba mu des ñaar kot ñu ne nag ne bu ARTP nee na donte candidaturam ca mairie bu Bukki Jawe kenn retenir ko du tax mukk li yàq bennoo gi du jóge ci moom moom Abdouli nee na engagé wu na totalement ci jàppale candidat yi Benno Bokk Yaakaar yi Macky Sall tànn ndax moom lu Macky Sall def doy na ko li Cheikh Omar Anne wax opposition bi ci Vox Populi doy na xalaatu àdduna yëral xët mu njëkk journal bi Cheikh Omar Anne maire bu Ndioum ministre enseignement supérieur nee na amul sikki sàkk ci ne bu ñu génnee ci élection locale yi opposition bi dinañ fi gën a féewaloo dinañ fi gën a néew doole Cheikh Oumar Anne ne ñi doon wax waxi deuxième vague bi ñu sookee seen deuxième vague gis nañu ci athlètes yi dàq ci àdduna bi yóbbu luñ leen dara ki mayewul dara turbine nee nañu moo di Souleymane Ndiaye ubbil yéenekaay bi njiital synergie pour un développement durable ci meeting bu mu doon def ngir jàppale candidat yi Yaakaar yi Macky Sall tànnal ci diiwaan ba ku ci mel contesté ndax lu dul lu yàq deru réew mi wutuñu ko turbine dolli ñu ci ne moom Souleymane Ndiaye directeur des infrastructures aéroportières keroog def na mobilisation bu rëy ba mu yëkkati ay kàddoom Youssou Ndour ay kàddu yu mu yëkkati démb ci émission Grand Jury ci rajo Futur Média journal L'Info xëy na ko ci xëtamu njëkk ba wax ñu ne Youssou Ndour mi ngi sàkku jàmm ak dal ci élection locale yi ñu dëdmal Youssou Ndour xamle fa ne sénégalais yi xam nañ bu baax a maintenance aéronautique démb lañu ñu signé liggéey di travaux war a tàmbali ci njeextal weeru décembre ñu war koo liggéey ci fukki weer ak juróom-ñett wax nañu ne lu mu néew néew téeméeri emploi ak juróom fukk di emploi direct danañu ca jóge ñu jóge ca dem ci l'observateur mi xëy moom ci kaso yi réew mi li mu ci gis moo di ñi caabi féete ginnaaw seenu nekkin ci kaso yi mitti na mitti goo xam ne méngoowul ak nekkinu doomu aadama ci la ñu waxee kaso bu war a jël 4924 détenus ñu sol ko ba mu fees dell def ci lu toll ci 10532 détenus Savon de Marseille Alphé CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal Déodorant Malaysia Umo ñoo leen doon may li ci yéenekaay